Touba ca kanam ci kilifteefu Serigne Abibou Mbacké Serigne Takko Mbacké ambassadeur bu Touba ca kanam Serigne Abdou Lahad moom Serigne Abibou président Serigne Abdoul Fattah Gueye Serigne Bara mbake président commission massification bu Touba ca kanam soxna bintu Mbacké présidente commission féminine bu Touba ca kanam ak mboolem soxnay Touba ca kanam soxna Mame Faty Mbaye Baye Fallou Serigne Abibou soxna Mame Faty Mbaye jàmbaaru Serigne Touba ànd ak soxna Mame Bousso Mbacké mu Serigne Abdou di jàmbaar ci Touba ca kanam soxna maam Awa ma Ñang di jàmbaar ci Touba ca kanam soxna May Mbàkke di jàmbaar ci Touba ca kanam ak mbooleem soppe yi ak mboolem kuréelu bay Abou bi ak képp ku yaakaar Serigne Fallilou ñoo leen di woo ci kafe Touba gu mag bu ñu amal allah allah àllarba lay doon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci corniche moo Modou Bousso Dieng bu ñeenti waxtu jotee mbokk yi mu di jowoo ñëpp nag bàyyiwul kenn Serigne Abo Mbàkke mu Serigne Fallilou ak mboolem waa kër Serigne Fallilou Mbacke gépp Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Fallilou di kenn ci Touba ca kanam Serigne Abdoulahi mbake moom Serigne Dam Atta Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Modou Boussa Dieng Serigne Abdoulahad Mbacke moom Serigne Jiri moom Serigne Fallou Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah Soxna Bali Mbacke moom Serigne Muntaxa di kenn ci Touba ca kanam wa Ndamatu waa kër Baylaat waa kër Wele Bagdad 1 ak 2 quartier Bëgg Bamba tableau Sukaru Mbay marché Okas gar bu xayra 1 e ak xayra 2 jannatul mahwa waa ndok waa béto waa sam bu sëriñ Abdou Latif waa kër kab HLM 1 e ak HLM 2 waa Touba Mbal waa forage Belel Soridan kër pencum bay waad umul xura ñaari pono ndaamatu jàkkay sëriñ Saliou Mbacké sanc Daaru Rahman yu sew ndamatu jàkkay sëriñ Mandiaye Jong waa Guédé waa Sam Yabal waa Mbarbake waa Tool waa Mbousobe Jogo Daaru Bey Sam Thialé ak mboolem collecteur am yu nekk ci Ndakaaru ah fàttewul jàmbaru Serigne Touba yi nga xam ne ñoo nekk ci jaspora bi sori du dox seen diggante ak liggéeyal Serigne Touba rawatina nag soxna yi ak continent bu ñu mën a nekk mbok yi bés bi seen bésa bés bu mag boobu mbokk yi kan lañ ko dara jaale une grande dame intellectuelle de haut niveau soxna soo xam ne bokk na ci soxna yi gën a ràññeeku ci àddina wërgal këpp ci xarañteefam ci xam-xamam yàgg sigil soxna yi yàggale na taxawu madame la directrice soxna Ami Fall Sarr directrice intelligence magazine mbokk yi waaw jigéen ju mën góor a ngoog de di taalibi Serigne Touba nag kooku nag la ñu darajalee bés bi cër bi rëy ci moom lool ba tax na mu ngi woon ak mboole mbokk intellectuel yi fu waay nekk rek sa xam sa yitte ndax jàpp ci tubaa ca kanam mooy liy jëmare réew mi ca kanam mbokk yi mu ngi ci woon nag waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall mbooleem Cheikh Serigne Touba yi waa kër maamam Serigne Yaram bay waa kër maamam Serigne Ibrahima saar Njaañ waa kër maamam Serigne Abdoulahi Diaw Paxa waa convention du Bawol ci njiital Serigne Pape Fall di kenn ci jàmbaaru Serigne Touba yi di ci soññ nag mbooleem mbokk daaraam yi bàyyiwul kenn Serigne Fallou Ndiaye ak Serigne Assane Fall ak Soxna Awa Marama fu mu gestoo ci terrain bi seen leen képp kuy ñëw na nga bàyyi wala xel commission sociale bu Touba ci kanam soxna Mame Faty Mbaye Baye Fallou Serigne Abibou mi ngi tàllal loxo ñëpp di woo ñëpp ngir lan li Serigne Abibou bëgg ci dëkku maamam bii mu amee ko ni mu ko bëggee te ñu ànd ko ak moom mercredi 27 décembre corniche su Serigne Modou Moussa Dieng ñàkk ca te wóorul de